assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa Senegal, mbokku Adina, mbokku àddina euh, ñu ngi leen di nuyu di leen rawatina mbokku juliti ah di am nakar lol nakar bi nak moy li nga xamne waxtu wi mom la ñepp di waxtane muy ay kaddu yu ñak teggin di ay kaddu yu ñak worma di ay kaddu yo xamne ne sax. ñii wooyee ay maj ñuun maj ñun kabiir sax waruñu ko wax rawatina nit koo xam ne nit ñi dañ doon préparé pour jël ci yow ay leçon yu ñu war a tiire pour jaamoo ju ko yàlla mbaa ñu yokkoo ko seen fas-fas seen aqida ci li leen war seen diggante seen borom wala seen diggante ak seeni dëkkandoor wala seeni diggante ak ñi seq ak bi ci rafetal kàddu yooyu nag Moustapha Jaxate yëkkati man Serigne Cheikh Aliou Dramé ambassadeur de l'islam maa ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax a baax a baax naqarlu goo xam ne wallahi commencement rek la am waaye amul yem waay ku tël ni yonentu yàlla Muhammad ki nga xam ne lu xew moom moo tax mu xew luñ bind moo tax ñu bind ko lu am moo tax mu am nga war a mën a toog di joxe exemplaire jël ci ay waajuram jël say waajur di leen tëkkale ak moom ah Moustapha juumoo ndànk sax daan woo ndànk sax xalangu nga ba dem ca ban ba wax nga loo xam ne wallaahi bu marta bay Moustapha wàccee sa kaw da nga dund loo xam ne ci xat-xat dund loo xam ne ci méttit dund loo xam ne doo ko wax kenn te bu boobaa yàqu yu yóbbu sa bopp ndax kat fi nga laal baaxut te du mos a baax nga koy laal te ku ko mën a laal koo mën a doon dañ wax ak yow foo mën a bokk dañ wax ak yow rawatina nag ba nga bokkee ci kër Cheikhul Xadim radiyallahu anhu mi nga xam ne moom bañ na ko ba li ko gën neex ci ay turam mooy xaadimu rasulillah ñëpp xam liggéeyam ñëpp xam taxawaayam ñëpp xam li mu wax yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa demal ci mooy bu naafion baarakallaahu demal ci lam yabdu mislu Mustafa Muhammadin demal ci demal ci ba mu jeex nga xam ne yonent bi ko gënal léppam moo ko gënal lépp lu mën a am moom Sëriñ Tuubaa tey gàcceel nga kër googu gàcceel nga fi nga bokk tey def nga erreur boo xam ne bi yow rek yaa ko wéetoo waaye koo xam sax mbaa mu mos laa xam bis ni ko tey tengoo gàcce Moustapha lii ndax dañ la ko waxloo ngir alal wala danga koo wax ngir bëgg ay postu wala danga nga koo wax ngir bëgg barakalaaw yokkute lan moo tax nga wax ko laay laaj yii ma la wax bu fekkee ne moo tax nga wax ko mënoon nga koo bañ wax te dinga ko am amin bu rafet bu jekk mais yi kaddu nga yëkëti na nga dem tuub tuub gi nag gi ci ëpp doole mën nga tuub jéggalu rek nit ñi dégg ko mais nga tuubal sa borom na nga tuubal sa borom yuntu yàlla muhammad xajam laa wax waxuma ay wajuram da xajam ab kalbunam moo gën see ñaari wajur man cheikh aliou ibrahim maa wax lii yàlla muhammad saa sallam ab mbaamam ximaaram moo gën say ñaari wajur maa la wax lii te bëgg naa nga jot ci vocal ba déglu ko tooñ nga àddina bi tooñ nga ummatu rasulillahi sallallahu alayhi bi yëpp tooñ nga umma islam bi yëpp li nga def ñaaw na jégg na dayoo nit yi ñëpp wax ñu jël Moustapha mi delloo ko ci àndam kuñ fi laaloon tey sa sëriñ mbaa sa baay mbaa sa maam mbaa ka nga yaakaar bu àndeek dogalu yàlla réew mi kenn du dégg ki ñu laal nag mooy patron yu ñëpp ki ñu laal nag mooy sangi ñëpp kiñ ñu laal nag moo tax jàmm ji am kon jàmm ji nga xam ne ñun am neen ko wala daraja wala wala wala lenn rek ci àddina lu ñuy lu ñuy màggalee Moustapha tax te ñun ñii kuñ ci laaloon kenn sa sëriñ dana la jaral nga dem seet ka laal sa sëriñ taal këram mbaa nga jëli ay yet dóor ko mbaa nga reyanteeg moom yonent bii ñu laal laal ko ci lu du dëgg laal ko ci lu du dëgg laal ko ci lu du dëgg ci waxu bakkan rek toog ci télévision rek di xaabaabal di xotteeku di def rek di di di dem rek loolu ëpp na Moustapha Diakhaté sa kaddu yi kaddu yu ñàkk yow Moustapha jaxate rusloo nga ñu rusloo nga ñu wallahi rusloo nga ñu yow Moustapha len la dupe ki la duppee gëm bo gor gor lu won ci duppee gi ñu kep rek gor gor lu kep kep kep kep bëgg lu baax lu ne mën ko am ci adina seen xéeti façon wax yi ngeen di wax mu mëna taal rew mëna tasum adina, so len xëyee naan jégalu naa jégalu naa li naa dara jar ko dara matu ko maa ngi am lu ma naqari maa ngi am moom métti ba li ma war sax xaw ma ko waaye na ñëpp jug waxuma murit ak xaadir waxuma laay nag tijaan na jullit ñëpp jug dal ci kaw Moustapha mii ba lu mel nii dootu ko xalaat keneen ku dul moom dootu ko xalaat wax ji ñaaw na wax ji bon na ànd naag ñàkk teggin teguwul ci xam-xam seen mbokk Cheikh Aliou Dramé ambassadeur de l'islam moo doon jéem rek moo doon jéem rek waaye xam naa ne ñu ma gën a fare kaw war caa wax dinañ ci wax te dinañ ci wax lu ëpp li ma ci wax dinañ wax it lu ëpp dayoo li ma ci war a wax bañ Moustapha xam ne lii mu def def na ko teguwul ci yoon def na lu bon lu ñaaw a ñaaw a ñaaw a ñaaw wasalaamaaleykum